boobu Bambo moo fa nekkoon champion man a naa fa ñoom garga ñu ñëpp maa nuy aw passage mooy man awma frontière waaye dama toj làmbo babat soo ko dugg arène moo tax maire sama maire koñ bu ñu gisee may dóorante da leen jaaxal parce que simple laa doon indi chaque vendredi samedi dimanche dama naa indi saako ceeb du bokk dama naan qualifié tournoi bu ma neex parce que maa mënoon bëri pare am doole waa xam nga mooy loolu nga jël laay Pythagore ma jël laay Pythagore ñëpp ne nag mooy loolu moom it mu jug foofu dem ndeysaan sama dëkk ba nooto mhm. pare préparé fa def fa open presse man ma ñëw sama koñ wala leen yéen laa am. mbëri nekk caaro yi gépp nag ñu ma bokk écurie ñu ma bokkul écurie ñëpp taxaw. dooleel ma. ma ñëw pare pare bu doy waar ñëw jàkkaarloo moom daan ko jël wu rëy. parce que xam nga rek fooguñu woon loolu ci man. pour ñu ñëpp fooguñu woon ñàkk mën naa daan laaj. waaw waaye man mi man ne la woon sax ñu yeemoo mun naa ma ñàkk su ne woon pëg pëg pëg mun nga daan laaj Pythagore ndax man na eh. man ngay wax waaw ndaanaan ndaanaan ak fi jëlee buur buy folleeku li koy folle du ko neex. nga jóge ci laay Pythagore. Oh, ñëw ci Alioune Seye 2. ñett mais sa jëw dégg nga ko. wax ma ci ma xam jëw bu rafet loolu jëw bu ñaaw. gars yi nee nañ. waaw ñàkk combat tey mu dee yëpp. waaw koy réussir. waaw beneen bi mooy gars yi nee nañ yow wërsëgu tam nga am allah yàlla na yokk catuwuma la <laughs> parce que ñàkk combat bu tey mu dee. gars yi di ko xalaatal ñaq di xool da ko lijjanti mu gaaw dem yoonam mais ñaq sa combat tay yow da wuti misik bi day saf wala ñaq yow lan la lan la. waaw moo tax la jëw boobu moom dégg nga ko. waaw dégg naa loolu. waaw fi ma koy déggee mooy. waa waa Géejawaay moom dama koy dégg waaye nag benn message laa leen lancé dama fa am lépp. parce que li tax mooy ñun duñuy ñuy noonu Alioune Seye fii tey du fi jug parce que ñàkk fi ay mbokk kon caaro yi am na fi mbokk man waaye am naa fay mbokk dama fa nit yu baax kon du caarooy ak géejuwaay ñoo doon bëre. daañu torop maa ko dégg mu ne damaa tarbiwul làmb sukkal ko raamal ko waaye xale bi mu doon bëreel. billaahi wallaahi daa tarbiwul làmb. mais Alioune Seye est-ce ne ñëpp dañu ko fay bàyyi woon. kenn ñeme ko wóor naa loolu lañ ma wax. non xoolal wallaahi Alioune Seye pour nga pour combat am tëgg ko. day métti. waaye ma ne ko egsi man moom wax ma la lekk waaye dama koy. yow yaa ñeme lu xotteeku lu ne ak yow lu xotteeku. waaw parce que amoo amoo papa mbër bu ñu xam. amoo magu mbër bu ñu xam. Mm-hmm. te caare fii maa téye seen drapeau. Mm-hmm. mbër bu ko nangoo bu ñàkk a nangu ñi ma nekk ñëpp nangu nañ te man xam naa caare dama ko war a téye. Mm-hmm. yaatal samay rak. pour ñu jàll kon tey kuñ ma jox ku ne damay gëm ni damay nelaw yandoor li ma wax lu leer la. ngeen bëri combat boo xam te ni moom. waaw archive la. waaw combat bi moom kenn dootu ko fàtte. ci àdduna waaw sa combat ak waaw li ma si ñëwee mooy. Mm-hmm. tey combat bu ma bàyyi woon xel sama àdduna la. Uh-huh. combat bu ma bëggoon la combat bu ma respecté woon la. Uh-huh. la ma ca def ci préparation ñeme ma ko wax doomu aadama. comme nii mu dem ci mes sax ni ngi di ko dégg. Uh-huh. waaye ñi ma sekkal ma tooy bu ñu waxee rek après xool day tooy. waaye sant yàlla. waaye def naa ci lépp lu ma amoon pour rek àdduna xam ma ci ma daan ko jël ba man mu xamoon naa àdduna dañ ma xam. ci làmb ji. Alioune Seye nga xam te ne combat bi contact contact da cee contact gars yëpp Alioune Seye ndaanaan ndaanaan yi ndaanaan yi bërekat yi jàngal mbëru kii yëpp waaw ah non Alioune kenn du moom combat boobu koy ñaq ba pare rek li ma si gën a jaaxal mooy que ni ñaq combat bi on dirait que ni yéen da ngeen xamoon ni combat bi du am quoi yéen ñaari mbëri yéen ñaa yow dégluwoo yow. Eh, ima image bi image bi nga gis ci télé bi lu mu la jox. Hmm? image bi nga gis ci télé bi lu mu. non bala ñoo àgg ci image yow combat ak Alioune Seye. yow jàkkaarloo naa yow. yow demewoon ba benn instant. waaw ñu ne la combat bi du am. non non. mais déggoo woon ni combat bi dinaa koy dégg ci nit ñi ñuy wax. merci Bass su ma koy déggee tey ci géejuwaay googu laa ko déggee. Uh-huh. waaw déggoo ma fii de fii da am temps boobu. ok laa déggee waaye dama lay xamal leen rek. yow ma la rombee da ngaa kontaan. boo gisee nga ree dama xam ne ndeysaan Fatou gis na tey ñàkk mel noo xam si mosu ko mel làmb ji nu ma si mel mosu ma ko mel. non parce que tax ma faa la. waaw mooy yow da nga zéro stress gis nga suuf géej gi li muy bëri bëri mbir yëpp dañ koy kaas. dama koo naan. suuf géej. Hmm. parce que bi ñuy wër boo seetloo sama entraîneur day daw di ma poñe man ko bàyyi ma bi may waxee yow. soo seet entraîneur mu naa man ko ay eh, bàyyi man may foo maa ngi mel noonu laa mel damay ree waaye mu dugg ci géew bi c'est des lions waaw barki borom tuubaa bu mu duggee diggéey bi gars yi di kër ngi dama koo daw suuf bi seetlu dama koo naan. suuf bi muy tëtëtë. dama koo naan dama ko daw trois tours yi yi ma wax dama ko def comme ndox sama entraîneur daa ñëw di ma téye man ko bàyyi ma premier parce que athlète laa man la man oto gasoil la lu may gën di daw di gën a posé wu. Mm-hmm. maa la wax loolu. kon combat bi amoon nga yaakaar bu arbitre bi. déggoo li ma ku dem ba taxaw di xaar arbitre ne prip. Mm-hmm. kooku pare na. ngeen yàq ko. ku ko yàq. ah a yàq ñun daal dañoo jékki-jékki. waaw gis adversaire ba. waaw naaj. waaw ñu jékki-jékki gis raagante yi. waaw ñu jékki-jékki gis lu ne. léegi mu nga demee toog si image caméra yi ni ñu la jox lan nga gis. lan nga gis. Ah, violence laa gis. violence fu mu jógee. si yéen ñaar ñëpp si ñaari kaay parce que sa sa booy bi nga doon àndal. Ah. sa booy bi nga doon àndal moo sotti. Ah, yow loolu gis. moo sotti benn image gisee ni sama booy bi ma ànd dañ ko sotti. Alioune Seye. ñu ngi may seetaan. Mm. Alioune bi bu ñu ñëwee ba si estade bi. Mm. ba mu wàcc. Mm. ba ni ma war a bëreek moom ci digg bi. jàkkaaluñ face à face kon kon loolu jàmm la saa bu ñëwee damay moytu dem. parce que ndax pare bañ ku yàq. bañ moom mu yàq làmb ji. parce que xam naa ne moom sportif la waaye dégg si waxam lu mu wax. jégalu na at ñëpp di ko dégg mun lu fees tuuru. defaat mbir dina fees mun na bañ a tuuru ñu xëj ko. naan noo gisee noonu lu fees tuuru. waaw xam nga nit ku nekk ak euh, moom li fi ko mbir di toll. Mm-hmm. waaye àdduna boo si nekkee. li ëpp saas mooy nga muñ parce que nang muñ jël nangu jël na cëru cëru bañ. Mm-hmm. muñ nag ci loolu lépp la nekk. man doon nga ne xale laa. Mm-hmm. doon nga tey. Euh, làmb bàyyi na ma xel moom tey dafa toog deux ans wala cinq ans yoo xam ne dafay dafa daanu. daan toog deux ans yoo xam ne bëriwul. tey mu am si combat mu jóge du yàqat làmb xam sax bëriwul waaye des fois nit dina am foo xam far la ñu xamee jàmbaar mooy fu mu gën a critiquer gën a méttee nga dëkkuñu parce que fi ma jógee man su ma mënta woon muñ du ma jotaal lii. mais est-ce que keneen li mën keneen parce que tamit ah, ko. est-ce que neexul neexul nii. nga préparer sa combat nekk. boo xam te ñëpp dañoo bàyyi xel nga gis nga si ñàkk jariñ ak Alioune Seye 2. comprendre nga. après nga dem préparer nee na nga préparer ba dernier moment ñu ñëw sotti la gàllaay est-ce que loolu tamit amul lu mu joué man damaa wax dara. def nañu ko waaye yow man affaire mi man man kuy bëri man am problème dangay def lu ne waaye man booy def dama lay ree man supporter dañ may wax ma la ni delloo lu neex lañ may wax. Mm. ngir pare dangay ngay wax ma lay reetaan man damay ree ba korong may bëre. Mm-hmm. ma ne la liñ nekk ci làmb yëpp kenn wax bu nekkee mystiquement rek. Mm. lañ ma waxoon daf ma ko. ci commencé ngir pour sauver làmb bi xam tax loolu. Uh-huh. tey dañu boo dugg see côté B nga jëm B uh-huh. moo nekk gauche. Uh-huh. bul jël côté A. côté A moo nekk droite. ba ma ñëwee pour sauver làmb bi ma ñëwee fekk leen B. tey mënoon naa ne B mooy loolu. dafa ma damaa bëgg sëriñ laa ma dem ne. te balaa may dem sama entraîneur dafa dem wax CNG bi gis ne fi ngeen def benn puqus bu ndaw ruq bu ndaw gis moom. Mm-hmm. yow pour nga jël si ma da ngay dugg jël barrière duggaat ñëw ba ci biir. Mm-hmm. xool ñoom dañuy bu dem beneen mooy. Mm-hmm. sept personnes lañ ma may sept personnes ñaataa ko topp ëpp na plus de quarante quelque benn. man aw ma champion parce que booy ndeysaan xamuñu leen gun ci làmb ku si ñëw ma bu ma daggul bee wala nga bokk si nombre doo dugg. waaye tey xoolal champion ma mu àndale kuy ñëw xam nañ la reconnaître nañ leen si làmb saa bu ñuy ñëw nañu indaale deux wala trois ñooñu bu ñu ñëwee si cumukaay man bu ñu xeexee man fu ma jëm par ma jë dëgg du doomu nopp man li may wax nii du question dara mun naa ko ma ñu wax te ma yàqal dara te nit ñi ngi xam waaye dëgg boo koy wax rek da koy wax moo tax des fois du ma bëgg sax di si jaaraat mm-hmm. parce que bu ñu ci jógee Alioune Seye woo na mu ñu déggante mm-hmm. waxtaan wane ni kenn ku nekk daa am affection waaw mooy mbalak naan waaw mu ne mooy mbalak naan ban yee yaa yay daw ñuy mbal xam nga lépp mooy tey def na loo xam ne gënalu ko bëgg waaye nag bu ñu waxee dëgg rek ah, ah. nit ku lay ut ut jéem jim jot la na ut fu la gën a jege ba jaar moo ko wax mu ni sama combat booy bool dañ maa sotti gaalaaj ma daanu mm-hmm. sama combat Moussa Ndoye dañ maa sotti gaalaaj ma daanu mm-hmm. waaye bi mën la a sotti mën nañu sotti gaalaaj te doo daan ama seen yoon sotti yuñ ko gaalaaj mais bu fekkee tamit yow nit ki da nga gëm tamit li la mara bi wax tamit ñàkk tamit luy yow xam nga Alioune Seye wax dëgg yàlla tey ko xam xam ne moom du yàq laam Alioune Seye 2 ko xam-xam ni wax dëgg yàlla mbër mu posé la. mystique indi ko fi boo allah yow sax xam nga ci dara ñàkk jariñu moom mosu ñu gis ñu ne ñàkk yàq yàq la laa wax dëgg yàlla moo tax la mën a bëreem hmm. ak ndaanaanam moo ko fii mu toll tey dëgg la xëy na làmb sens na na xam hmm. sens moo tax ñoom waaye sëriñ yàgg na ko wax da ngay daan mu daanu sëriñ yàgg na ko wax da ngay daan mu daan affaire du question sëriñ bool bu tilim kenn daf lekk bool bu tilim hmm. te pourtant sambur ak pot ndaa yëpp kawsu la. waaye pot sàmbul boo defoon ndox jox ko nit du ko naan. waaye boo jëlee pot daf ci ndox nit mu naan. ngir ormal bi ak sell ga. xam nga nit da ngay nangu man damay nangu tey li ma la xam ku ñëw tey ba stade programmé prépasse ne combat kenn du ko yàq duma day dayee mbër bi tant que bi taxaw bu waa du mën a tooñ. buñ ciblé dañuy daye. nañu waxtaan. Mm. pël bu defeet moo nekkoon 24 bi yaakaar naa xaw ma nan 24. Sénégal 24 ok boo seetloo image mi foofu Alioune Seye mi ngi yor bideel bu ndaw bu nekk si mbuus bu zone. Mm. bi mu ñëwee bu mu ko sottee booy xool li ma la wax de. Mm. ko jox ne ko demal mu dem moom jox nañ benn bideel mu war ko sotti digg géew bi. Mm. bi muy dox di ñëw seetlu ma Alioune daf na kaar 30 minutes yoo xam te ñu ngi koy xaar man pare naa ba taxawal. muñ sax seddaay mënoon na ma jàpp ba ma liw. booy bi bi muy ñëw moom seetlu tourné na ba yor biteelam di ko xool di ko xaar bi mu ñëwee am na lu ñu waxante waaye gisoo woon ba mu ko sottee fii booy bi dafa tourné xool li ma la wax image bi loolooy sa gémmiñ noppil waaw du woon jublu wala pour moom wala déet waaye li mu ko def moo tax mun ko noppil waaye yow. mais waa acteur làmb ñoom ñëpp boo waxee dañ ne la booy bi moo ko ñu wax Bécaye Mbaye sama pap maa ngi koy nuyu. dafa wax mu ñëwaat ne ba ma ko seetaanee birisma dama xam ni nag la raison moo nekk ci dëgg. parce que ñàkk pare woon na pour bëre man la. ñàkk gis nañ la ci géew bi. kon pare naa. non wax dëgg yàlla moom xam nga ku waxal yàlla. waaw ñàkk action yi ba muy am. waaw ma nga ne le ku waxal yàlla quoi comprendre nga Alioune Seye de suma mag suma xarit la. ñàkk suma mag la suma xarit la mais ñàkk pare woon na pour bëre loolu moom Sénégal yépp xam nañ ko de ah loolu moom ñépp xam nañ ñàkk boo gisee may leeral boo gisee may leeral mais tey yow xam nga tey yow xale bi mhm. moom moom moom lañ ne moom moo def waaw parce que am te dégg nañ ay acteuru làmb que ni euh, Père Khadim Samb ñu koy nuyu au passage mu ne mhm. lu nit def rek loolu euh, kii moo ko sant nu mu tudd euh, comment ci mbër ma parce que jëli nañ ko mu ne am na loo xam te ne dangay waxtaan ak ñoom mais boo gisee tey waa acteur làmb li tax ñu ne ñaq jariñu peut-être xale bi lañ gis moom mu sotti comprendre nga xam nga tey euh, làmb mën nga am angle bii mën nga am mais ñëpp ñëpp xale bi lañ gis mu sotti. léegi sama papa kon donc ñëpp dañ naan xale bi moom moo tooñ. léegi bu nga toogee sama papa di waxtaan ak moom. Uh-huh. seetaan naa leen. Mm-hmm. naa wax leen nit motul. Père Xarim Samb. waaw waaw seetaan nga ñu. xam nga tey ki nekk ci kaw. Mm-hmm. ki nekk ci kaw ni fii bu amul dara bu séentoo fii rek lay gis. Mm-hmm. waaye ki nekk suuf mën na gis lii lépp. moom nit la rek comme nit yëpp. munu gis lépp munu xam lépp. munu nekk ci këram. xam ni may dundee sama kër ak ni may waxtaanee ñi may jugal. munu ne sama papa la nag je respecte waaye gis nga àdduna boo ci nekkee. bul nangu wax lu ñu lay xeebee. del wax li nga xam parce que nit saa su ne boo bëggee mu wax la li mu xam rek indi ko fi mu mëne boo ko indee fi mu mëne mu wax la lam ca xam waaye boo ko indee fi mu mënewul du la ca wax dara parce que ci xam-xam. parce que gëstu tey moom pour ma wax moom munu nekk këram. préparé lam talu lamb ñëw naan maa waxanteeg booy beeg yooyu booy bi samedi billaahi wax bi après la ko wax sax bu ma ko waxee dama dama rus sax bëgguma woon si woon sax di détail waaye comme ko egg nañ fi moo ko samedi bi uh-huh. pour ñu jëm dimanche bi euh, samedi 4 heures du matin dimanche xam nga samedi lañu tëdd ñoo bokk benn néeg bu ñu fanaan 4 uh-huh. heures du matin mi ngi yor ñaata 1 million cent uh-huh. jug fajar yeewu ma ko yëgu ma moo dem jël liggéenti mi liggéenti daf ko ci làmb kon kook est-ce que na yàq làmb ku def un wax ma leneen de jour boobu rek li mu yor. un million huit cent. ba mu dem stade loolu topp ko. te booy bu bien la. booy bu baax la. waaye du tooñ waaye du daw. waaw kon xam nga ni tey kooku doxul ci yooyu. waaye damay bëgg a xamal ni rek gis nga àdduna boo ci nekkee man. billaahi li ñu ma def yëpp. ñeme ma ko wax parce que dama gëmoon ne ndam laay am. léegi après. lay am am. waaw. ñëpp gis nañ ko. waaw ñaq jariñu jërul li kaam. waaw waxoo ñaq ñu aj la aj sa waa écurie. te écurie bi inconnu lañ. écurie bi wax dëgg yàlla loolu moom ñëpp kaas nañ ko ah. ñun ñii sax d'accorduñ ci. Mm-hmm. parce que ñàkk jariñu moom moo doon bëri. Mm-hmm. écurie bi ñoom seen yoon nekku si. Mm-hmm. mais information bu nga ko gisee gis nañ tamit nga def benn conférence de presse. wax gars yi mais après ñàkk loolu lan la def si yow. waaw li mu def ci man mooy metti na ah. waaye nag gis nga li ma la wax rek gëm yàlla day indi lépp. bu ma si tollee tey sax démb laa si soog wax ak sama benn gaayan sax mm. waaye maa ngi si soog waxaat demoon naa benn instant dof. da bi du question ni. Mm-hmm. waaye damay dem ba mel ni ku génn ci or ko làmb parce que dama si daj parce que dañu dafa am ñoo xam si dañuy jóge Europe ñëw ba fii ngir sama combat benn waaye. Mm-hmm. ma Dia su may génn fii raay bi ma fa doon oto may yóbbu sama reer ñaari ginaar chaque guddi. dem Birios Doore ODK bi jëndal ma meew yooyu nga xam si day am ay ay karasool ak yooyu. Hmm. yu ma gën dóor ma dóor Modou Baye Fall jëlal ma si Kanté. Hmm. deux mois. Kanté fay loolu lépp. mais Kanté moom da ngaa daw après kii waaw dama blessé. ah yow da ngaa daw de Kanté ay kii dafa saf de. daw ma de ah. nekk naa fa un mois ku ñëw daw ñi fa jaan ñëpp day daw xam nga ku nekk un mois ko ragalu dara. Hmm. bi ma entraîné benn rek moom dafa woo ñi ma nekk nañ ki gasoil la. grandé dama koy naan li ma la moo tax stade neex ci man. Ah. saal bi lu ñu ma def loolu vidéo ba léegi wan moo ko kenn ah. dama ko doon naan parce que ndax pare parce que man moom ku ma dimbali ci loolu laa bëgg yàlla daf ñu dimbali ma ci mm-hmm. loolu moo tax ak booy si cause yi booy combat bi mafia chef ak sama gox lu ñu def mobiliser génne somme bu bëri sama entraîneur def ci coono yi bëri faar yenn sama yenn maaraay def ci lu bëri tey loolu ma def loolu parce que tax bëggee ma ko noonu parce que mosuma yàq làmb man mosuma am sanction ci làmb mm-hmm. man chaque damay bëre 4 ba 3 mm-hmm. ñaari saison 2012 damaa bëre 4 combats 2018 damaa bëri 4 combats xoolal loolu. mais yéen promoteur bi woo na leen depuis loolu na la. non déggante ma woowu ma. ba nga ba woowu ma. woowu ma te combat am ni mu taxawee. Uh-huh. tey maa ngi dégg ay këyit ak gis nga ngir seve lamb bëgg lamb gi ma bëgg lamb. Uh-huh. combat waxuma ci waaw waxuma ci wéet. Uh-huh. dama ñëw sama entre ne sa combat ak Alioune taxaw na. parce que man duma dugal bopp di rocc lamb bu ma la jox sama bopp nag. moo mm. dama lay bàyyi ak moom. Ah. comprendre nga. Ah. combat bi taxaw noonu ma jël ko. Mm. déggoo li ma la fii la taxawee sama koñ bi combat fii la taxawee. kon si ñëwoo mais kon tax sa reliquat jotoo ko ba léegi. xam nga jotuma ko. Ah. mooy tey néew doole tooñ la. néew doole tooñ la néew doole mooy c'est-à-dire fu ma nekk déggoo ñi interview ñu bëri nee ay xale lay àndal. écurie bu mu nekk écurie bu du bu ndaw de. écurie à l'époque la. parce que fu dun xaaf nekkoon yàgg na si fu nekkoon yàgg na waaye sëg sëg xam nga nag man maa nekkoon xale boo xam ne maa fa nekkoon xale bu màgg te écurie bi tey ñoo ñëpp tukki. ñeeñ nekk ci yeneen kon ni ñu koy gisee parce que ay xale rek laa àndal yàlla ñoom la mu sédd ma nangu ko lool te xale yi ñooy doon mag ëllëg. ñu gisee sa combat. waaw la arbitre bi commencé di kaas pour ñu assurer leen mais lan ngay wax waa CNG école bi ñu aj gis nañu arbitre bi sa combat si la lépp feeñee que ni dañ leen war a assurer xam nga bu dul loolu duñ kii ba grève feeg yooyu yëpp yëpp yëpp yooyu yëpp am ci ñax ñax yow sa kii foor na sa téere baax na de. non téere gu baax. Mm-hmm. liggéey ndey mi ngi ci waaye nag gox bi dañ ma yaakaar te duma ma tooñ ni ma lay waxee noonu laa mel. Mm. unique nii laa mel ni may réyee ni may fooyee noonu laa mel. Mm. waaw wax dëgg yàlla nag nee nañ ku yëy yàqu bukki mm. yéey nga yàqu yéeykatu yàq. Mm-hmm. kon comprendre kon dëgg du waaw dëgg du romb nopp. Mm-hmm. bi loolu amee mooy tey loolu noonu am noonu. ci digg géew bi moo waral faay yëpp feeñ. parce que sécurité bi doyul woon suñu jour waaye waxuñu wax sécurité waxuñu waxu ñun lañu wax ñun bëri ñoo indi problème. arbitre yi ñëw ne. su nekkoon ñu ñoo yàq làmb duñu génn. waaye sagam ba mbëri yàqee làmb ji. kon waxoon naa ci biir wax samay commencement man la àdduna dama waroon dégg ci kombaa bi waaye ni ñu ma déggee nii moo ma neexu. wax naa la ko sànq ni ma waroon déggee mooy dama waroon parce que dama wax ci interview yu bëri ma ni faale wu ma ko mën a bëre. faale mu ko mën a bëri mooy Alioune mun na bëri ndaanaan la waaye man maa doon xale boo xam ne moteur boo xam si xale bu ndaw la te moteur bi balaa mun a wane boobu tàng jër ñu jox koo xam si maanaam tey dañ naan moo dàq dawal mu wane moo boobaa mu wane sama bopp maanaam dama bëggoon def ko lu met ci bëre daan ko wan ko àdduna déggal waaye nag ci coow la amee bi coow amee nag lépp feeñ boo seetloo jóge na ci lépp làmb defaru muy sécurité bi doy na yéen journage bu ñëwee day am fu ñu leen yemloo supporter doo dugg boo zemi nekk foofu man su may su su ma nekkee maay sécurité bi li may sécurité ma wan ko ginnaaw luy ñëw nu may def maanaam tey sécurité bi taxaw mbëri lañuy ñuy seetaan bàyyi supporter kon ku fàq ñëw balaa ñuy replé pour tourner pour xool ku fekk egg na. mais waaye jotuma dara sama équipe at nañ leen. huit huit baa amoon na fi yàqu na baal lan. farma ji ku def ay millions yu bëri eggul sax lañ la fay nga def ci tuubulam kooku nu ma koy baalee. Hmm. kon xaalis baalu hmm. kooku gañe na si làmb ji bu yàgg kooku daa waroon jëkkati xaaj jox ñu parce que dañoo tëgg te xamuñu mu tëgg donc ni yàgg na si làmb parce ne dafa nekk ci yoon làmb bëgg muy dundal làmb nga tëgg koo xam si làmb da ko bëgg dëgg la parce que espoir yëpp xam nañ ko nga boole ne ñëw une fa ay quinze demi xaw ma vingt demi loolu daa mën a téye àdduna li fa nekk àdduna la xam nga dëgg yi dëgg quoi léegi nag ñooñu ñëw tey ah. mun ñu sécurité ña fa nekk man yàllaa ma dimbali waaye bu ma ko daanu sax ma génn du may ma ko daanoon daa duy stade du duy bi rek yam ci mbëri yi jógee ñëw dooleel koo bëri. te mbëri ku ci nekk am na fu ma jaar ak yow. kan ñan bisaab naa leen. ñan nga bisaab. ay mbuum mbayti nag ñooñu ñooñu yeneen booy. ñoom P52 Maguette ñooñu ñooñu ñooñu Maguette Seck moom bëgguma sax di détail ci moom. daa am combat. Euh. moom ku waroon muus la ku waroon mafiewu la. Euh. li ma def moom moom waroon jiit ci lool muy préparer boppam parce que nit boo jëlee avance daa am limite yam mm. su aussi man am naa mbëri yoo xam ne samay xarit lañ. samay xarit lañ. waaye tey bu ñu ñëwee dugguñu si dugguñu si géew bi dañoo dem si stade bi. lañ may jàppale jàppale nañ avant loolu. waaye xool ñoom ñëw wën a wéy wéelu nekk bokk ak moom nga ñëw def loolu bay xam nga wane sa bopp jaru ko. parce que magas ngi seq fu ñu musaan fekk dañuy dund àjjanaan bëggee parce que ñetti mbaare fi sorewul. xam mooy loolu. mais en tout cas daal instant bi lan ngay wax CNG ndax gars yi ñu ngi naan Père Alioune Sarr pour mu ndax euh, dañoo soxla 109 mais instant bi lan ngay wax waa CNG l'émission à sa fin waa CNG instant bi lan nga leen di wax yow. waaw li may waxaat foofu rek mooy euh, bu nekkee tey peuple bee leen teg. Mm. peuple buñ ñu doy doyalee rek nañ dem. Mm. Mm. parce que li may wax damay bëgg leer bu nekkee peuple moo leen fi teg. bu nekk peuple bi teg. peuple bu ñu doyalee nañ dem. parce que maa ngi seetaan interview ñoom Kéba Kante Kéba Kante maa ngi koy nuyu en passage. waaw moom suma grand bu baax la aussi. waaw te bu nekkee voté la daal. Mm-hmm. nañ ko voté bu nekkee nag ministre bi muy jëlaat xool koo neex mu teg ko mm-hmm. doo si mën a sore mm-hmm. parce que bu nekkee ministre moo fi teg kooku te bu ko bu koy bu koy tegg du ci laaj kenn moom. loo ci wax après sono sa bopp la. waaye arbitre yi tamit kenn mun leen seetaan parce que mun ñu fi yàgg xam yoon bi nee nañ que neen ku la jiit ci néegu lëndëm moo lay wan nu ñuy toogee. te arbitre yi yàgg nañ ci dëgg di dëgg. tey liggéey fi lu am solo. tey ku xool Malick rek combat ndeysaan ngir ëmb seen beeg Modou Lo rek. tey loolu bu nekkul su borom may koon xam-xam boobu day xaw a doy waar parce que cas bi garaawoon na waaye xaaru si kenn bu sax mbër bi daan daa dem ligganti directement ki nekk ci musiba bi. dimbali loolu mbër yu mag kii nañ la contacté nañ la. waaw mbër yu mag yi contacté wuñ ma waaye waxtu bi dafa jot. Ah. mu ma xaw a jaaxal fu mu toll parce que yi ñu moo toll waxtu bi ñu. waaw léegi ay sax bi ah, kon dañuy tàggoo. comprendre parce que émission bi sax instant bi moom. waaw tu tout dit. wax nga lépp te wax nga julli jot na. julli. mais euh, lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo waat rek mooy sant ak lu caaro yi gépp mm. sama gars yi mm. ni Aliou di sant nag goxu caaro gi ma nekk yëpp mm. di sant tamit porte-voix yi fi nekk. muy Moussa le maire bi ku mu defeen Fall Baara bu yëmbal. Euh, Babou Ndoye bu caaro yi. di leen wax ci liggéey bi corona bi dugg ci biir réew mi ñun sama mouvement sama waa gox sama waa quartier ñëpp ñu ngi jug pour jàppal leen ci ñu xeex feebar bi parce que feebar bi euh, doon na loo xam ne lu garaaw te tamit ñu jël seen motuwaay aussi liñ leen sant parce que comme que président bi da si jël motuwaayam bàyyi lépp ak médecin yi kon nit ñi peuple bi nañu bàyyi xel médecin yi li ñu wax ñu koy suivre muy si distance bi ci préparer raxas yi boo génnee sa kër. booy ñaan nga raxasu yére ba nga soloon nga simi ko sol beneen yére parce que xamoo loola topp ci diggante bi te da fa nekk ak say famille ak say njaboot kon fexeel bu leen waal parce que am te doo ko xam beneen bi mooy tamit peuple bi li kii di wax rek naan l l'ennemi africain c'est des africains ñun africains yi ok bu ñu loraat bopp c'est-à-dire suñu bopp mooy dégg nañ musiba bu am ñu bëgg a ñëw di nekk ak policiers yi di dàqanteeg ñoom di loolu doxul réew parce que policiers yi fi nekk secte bi ñuy dox pour ñun la parce que nekkoon nañ ci camp yi génn ñu ay tey bu demee ba génn ngir ñun la ngir suñu kaaraange kon nañ dox ci loolu jàppale suñu bopp jàppale wuñu ñëwee suñu bopp lañuy ñuy jàppale parce que gis naa ne cas yi yokkaan na préparé suñu bopp waaye sant naa ñëpp sant ak lu caare gépp mafia seva bi les hommes hommes sant naa ñëpp te kër gi ma nekk tamit maa ngi sant waa kër gi bu yaa xadi saana ko ak njabootam gi mu nekkal sant naa leen parce que tamit ñoom ñu ngi dolli ci man bu baax aussi sama rappeur yi fi nekk tamit sama entroit sama staff bi samay supporter fan club te boos tamit téer yi nekk si gox bi yëpp gis naa liggéey bu rafet bi ñuy def na gën a yokk muy max yi ñuy defar gratuitement di ko maye gis naa ñeneen di ko def ñeneen yi tamit maa ngi leen lancé message ñu def loolu parce que ku ci nekk rek boo jàpp nit ki si la nga mën nga koy jàppale te fu ñu toll nii loolu bokk na si li ñu war a mën a jàppale doomu aadama sant naa Omaro Daas Elmo Ela <laughs> Kosi Diagne Ela waaw xaliloo sama gaa yi sant naa ñëpp. di santaan nag alin Fall bu baax a baax sant naa Aliou Koura. que moom moo ko mafia CFAM ñooy liggéey ñoom Samba Sougou waaw làmp Fall xam nga Diego sant naa gars yëpp daal. sant naa ñëpp sant naa caaro yi gox bu gox sant naa Binta Mouhamed. waaw sant waa Europe nag ndeysaan xaarim Ndiaye ñoom Turquie maa waa Turquie maa ngi leen ñaanal jàmm ñoom Pambaay nekk France maa ngi leen ñaanal jàmm ñoom Trump nekk États-Unis maa ngi leen ñaanal jàmm ab faal sant naa leen di leen ñaanal jàmm fañ nekk bañ delluwaat seen liggéey parce que njaboot gi yaakaar nañ leen daal waaw moo tax yàlla na yàlla defal jàmm muccal leen ci feebar sant naa caare ñëpp bàyyi si ñëpp amul kenn ku ma bàyyi faati sant naa ñëpp gërëm ñëpp waaw parce que xam nga rek ñoom ci man lañ bokk daw ko seret tamit sant naa ñëpp ñëpp muy menuisier kalandoo yi xam gaa yi ci nekk ñëpp sant naa lañ gërëm naa sant lay wet ak sa caméraman bi nga àndal waaw Basiir di leen ñaanal jàmm kontaan naa yow moom mënuma la bañal dara moo tax saa boo bëggee rek dama lay yombal lool parce que mën nga bokk. waaw waaw sant naa Basir Kouyaté nag ak euh, groupe Ndiaye bi yëpp ah. ak arène nationale ñoom Fallou Mignane Sarr sant naa ñooñ ñëpp ah gërëm ñëpp mhm. wasalaam. l'émission tire à sa fin di ko béggewaat bu baax a baax moom mi nga xamante ni moom mooy ñàkk jariñu parce que li mu wax rek moom suma doomu day la suma xarit la suma frère la parce que tamit lu yàgg dëgg la wax dëgg yàlla nekk na koo xamante ni maak moom avant lii quoi di ko ñaanal moom gudd fan ak wér kon ni mu waxee rek nekk na koo xamante ni nitu kese la wax dëgg yàlla nitu kese la sans amul problème daal sans façon ko ni ma koy waxee rek di ko ñaan jàmm moo xam tamit li mu bëgg ci carrière yi yal na ko yàlla defal ci barke xam Mohamed di ñaan nag suñu papa Alioune Sarr di ñaan waa axlu làmb kii làmb daf koo soxla wax dëgg yàlla lu ñu naan nit matul nit matul nit di nga def benn affaire sax après da nga naan su ma yëgoon dama ko def te ñëpp xam nañ ni du yàq làmb moom ñàkk Alioune Seye tamit noonu tamit booy la quoi parfois da ngay def yëfu jeunes yoo xam ni doo comprendre di ko ñaan rek mu gracier ñu ko moom lañ mën a wax mu bàyyil ñu ko mu ñëwaat bien vrai que nag am na feebar boo xamante ni moom moo lëmbay àdduna gars yi ñu làmb mais daal ñàkk bëgg nañ ci kàttum yàlla bu saison bi ñëwaatee wala déwén tamit ñi bokk nañ bëgg nañ ci ñi mu bokk ci ñoo xamante ni mooy njëkk bëree parce que tamit du yàq làmb te champion la mbër la làmb da ko yaakaar goxam da ko yaakaar déen béggewaat nag bu baax a baax moom encadrement ñu nekk tamit ñu baax ñu disponible gis nañ lépp ñoom it dee ñaan jàmm leen nit moom bu nekkee ci gox rek da koy koy soutenir te gis nañ lii dal na xel parce que ñàkk am na yu bari wax na dëgg changement gis nañ si di ñaan yàlla waaw seytaane bañ a dox seen diggante ñoom ñëpp deen bëggewaat les internautes naan leen bëgg nañ leen bu baax a baax côté bi ngeen am si ñun mbër ak diine ñàkk jariñu lañ fekk si woon ni ma koy waxee les fatigable sama séeréer bu nice Basirou Diouf di la bëggewaat bu baax a baax yal na sa jàmm yàgg dañuy dem xooliwaat beneen daanaan beneen champion waxtaan ak moom ci mbër ak diine jaajëf